du Alioune Seye Paa Sow du Net Paa Sow du Baboy li ma waroon ak promoteur bi def naa ko mu mat sëkk. sëkk sëkk waaw. waaw bu ñu fayee bu ñu fayee reliquats ba pare ba CNG pare ñun mu ñëw ñu waxaale komba amul problème ndax combat maag si dafa war a egg dina war a bëre balaa balaa neer bi di toq dina war a bëriwaat incha allah dañuy bëri ah. bëgg non bëreegunu. non combat yi dafa war a am ndax mu ñu nekk ba bëgg téye nit ñi nit ñi dagg seen ay ticket àq boobu noonu loolu baaxul <laughs> am ñu toog jënd si ay biir. mais na ñoo xam ne dañ ne keroog lamb ji dañ cee xat. xat mooy lan. ça veut dire que parce que dañ dafa mbooloo stade bi. waaw est-ce que loolu. Mhm. tamit man mobilisation bi nga xam ne da koo def. Mhm. dañ doon dégg Papa Sow ñu ko doon xaar mobilisation. ak yëngu mhm. boo xoolee pratiquement. li li ñu gis dañ ne moom moo mobilisé stade bi yëpp yëpp yëpp. Mhm. est tamit nekkul woon loo xam ne tamit pénalisé na papa. Mhm. ba tax benn moment sax buñ ko biñ ko teree dara. Mhm. mu gis boppam ba ne léegi moom biñ teree élément. parce que sa élément lañ tere muy góor. nga gis sa bopp ba tax ne yow loolu di ko def par dëgg la loolu wax ci dafay yomb trop ñun fii yoo teg ay car car yu bari mooy unité 19 am na ay car 300 mi ngi doon bëre 10 am na doom mi ngi doon bëre. 18 bu ay bekkaay xam nga ñun am nañu mbooloo. xam nga ñëpp am mbooloo. même na situation yoo xamante ne booy parcelle bi demee ba làmb ja ñii dinoo ñibbi ñii si jël seen ay ceeb sol ko tax it ñoo neex a nekkal. Mm-hmm. boo gisee bu daan ay site site la nga gis mbooloo mu bari ne nii pat ñëpp ma leen faral war bi si fi ba bëgg dégg waaw gi da nga naan non lii est-ce que waa parcelle yi dinoo mais am na yoo xamante tamit keroog situation yi fa am ak mu manqué tamit manqué vraiment manqué manqué sécurité. kenn amuñu kenn du jaay sa bakkan bari nañ fa su ma dee comme comme àdduna mais situation ñoo xamante ni bi ñëw titti ngay sol sort t-shirt ak laafa mais tamit ñooñu seetaan suñu làmb quoi. ci am nañ fa une heure ñu mel ni ay kaña. bunt bi lan moo la fa téye maanaam une heure de temps. waaye yow moo doyul booy non faale policier yi. li xew si làmb ji gis ngeen policier noo mujj sax dugg ci biir gars yi damm moto jàmbur yi def nangam je m'en fous Caaroy ba Pikine magasin yëpp tëj mais Falang jaar na fi Mbaye Guèye Double Less Tyson Yékini ah Moustapha Guèye ak keneen keneen mais kan moo mës a bëree ko xamante ni kenn du am jàmm mais loolu dafa ñaaw te boo toogee yor micro bi da nga leen di sa man ñii laa am déedéet amoo ñii tey pour man ima cité image am. waroon na ko may bu bëriwul sax am ay milliards wala ay millions mais pas comportement bi. ah waxuma dafa yàqu de mais daal bu moom bu bariwul sax waroon na am xaalis mais pas nii am loo xam ne kenn du ko encouragé am na loo xam kenn du ko encouragé. Papa ñaari combat la ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari question la njëkk sànq yaa ngi naan ma bu ñuy bëri man doo bëri ndax man moo laf te man ma ko ci njëkk mooy ñu ngi lay masaw mhm. ndax gis nañ ne mu yaru mhm. dëgg yàlla li ku ne li nga xam ngay wax mhm. soo ñëw ci làmb wala ci réewante wala leneen kër yéenu leen nga daal mais que ñu yëpp dañ ne bis bi Papa Sow bisam mhm. wax sànq rek amul réccu ci zéro bis bi comme bis bi sa bis la kii wax na ko nee naa ko am naa tuuti rëccu ci benn côté ne ma sañoon daal gaañu du am mais ni ñoom ni ñu bëggoon ma reculer ko loolu as gor mënu ko mhm. man su may tëdd combat moo préparé combat boo xoolee damay nekk ci combat bi pour les 3 mois rawatina su may tëdd samedi bi wala jëm dimanche bi su ma yeewu beneen Papa Sow booy gis moom laay indi ci làmb ji moom laay bëriwaale ba keroog mu jeex Papa Sow doog a ñëwaat mais tey jii tey maa la wax nga war a dem def say sarax Fadel taxaw ne doo fi jaar. waaw dafa métti quoi dafa métti mu leer yow kii ki lay tere nii ki lay tere nii tegu ko fenn furu rek tey fi bakkanam mais du yoon bu ñu war a wax kañ ci loolu la ñu war a revenir aat ne ko bàyyi jiili baalu génneel baal nit ñi àq loolu la war a def. waaw. Ah. sama deuxième question mooy. tey combat bi yaa ngi doon bëgg a. la bëggatul. parewul pour bëriwaat ak yow. tey yow mi nga xam ne a bëriwaat si parce que nee nga doyuloo ci. boo déggee exemple mooy dama ne la nit ñi dañoo dagg seen ay ticket di am lu ñuy xaar buñ sañoon buñ sañoon dañuy bëri. man li ma a mooy tey ñu xam fu fu muy mujj. mais moom ci làmb la ma fekk may bëre. moom ci làmb la ma fekk may bëre man utuma pour bëre moom mosuma ut pour bëre moom bëre ak moom coono gi ngay daj rek ja jaru ko waxtu ak leneen bu utuma pour bëre moom mais dama ne comme que nit ñi dañoo am bëgg xom cooki fin ndax bandi cooki fin lay dee te moom bandi la fa la war a deewee dañ ko eggali. est-ce war a bokk ci sanction moom la ndax fi mu wax naa la man la CNG dañoo yaakaaroon ni. sanction yi da cee war a am que. <laughs> waaw day day non. <laughs> waaw maanaam maanaam CNG bi ñoom jàpp na ni ay nit lañ jox lii ki ne toogal fii nit na ku mat la moo tax ñu bàyyi ko foofu mais bu dul loolu CNG lii dootu ko delaat kenn beneen ku ñëw dana la jël ne la sa da ngay il faut nga xaar ba sa mbër ñëw ba teg ci mu nga doo ko teg sa sa sa sa sa sa ay matériel. fan yi ndax coow loolu mhm. mhm. metti naan dañ dañoo war war a tëj làmb mhm. loolu leen di bi ñu xëyee ñaan ñu ko yàlla la xew tëngeej ñu ngi koy massawu ñëpp di jaale ka fa ñàkk ba kenam la xew ci làmb ji bu ñu xëyee pur xew na lu pur raw am na tëngeej ci football bi lu raw loolu am na ah ak Demba Diop boobu léegi dafa tëj waaw ah, ak géej waay tamit gis naa ko waaw ah. kon du kon làmb rek mais comme que ñun ci làmb la nekk nañ wax ci làmb nañ waxaat mbër bu ne da nga sensibiliser da nga da nga sensibiliser nit quoi. Modou Lo Ama Baldé. Mhm. am na ñu xam ne dañoo tiit ne mënta na ca ba. Mhm. parce que dañoo jàpp ne ñaari mbër yooyu. Mhm. la ñuy dagaase mbooloo ak mbooloo yi dañu dogo mbër. buñ ko fa defee bakkan mën na faa war. yow d' accord nga ndax Modou xaj na foofu wala déet ak yeneen combat yi Balla Gaye Boy Niang. waaw léegi maanaam. lu ne xaj na démb lu ne xaj na arène nationale lu ne xaj na fa mais nit ñi nañ ko xajoo tey jii tey jii Ama Baldé ba nag paaso paaso fii Léopold daan ko dem ñibbi ci jàmm nangam nangam loolu amul problème ñoo ñoom ñoo war a sax dimbali Ama Baldé mu bari ak Modou Lo ay si waa supporter am Ama Baldé na ci waxtaan na sensibiliser ay supporter am séance contrat ñëw def ko mu neex na mi ngi bëgg a yàgg ñoom boobu ba léegi lu ñu jàpp mu yàqu lu jàpp mu yàqu nañ dimbali ñaari mbër yi ñu ñu livrer li ñu war a livrer nekk ci leneen quoi. na ci dayo combat bi. coono bi ba si jour làmb mu yàqu tey dayo combat bi fan la tolloon ci bu mag a mag la combat bu mag la wax dëgg yàlla lan amoon yëpp lan ñu may ak lépp def nañ ko ci. mais rek sant yàlla rek yàlla moom ay programme bi ngi noonu quoi. taxawaayu mais Franc ni mu taxawee noonu la xale yi Parcelles yëpp taxawee ndax ma yaa ngi gis ay obali ñëw nañ fa ñoom booy siin ak ñoom Blindé booy yëpp ñu ngi woon booy yëpp ñëw nañ fa ñëpp wan ma ni ñu sa ginnaaw ma ngi moo tax maa nuyu xale yi Parcelles yëpp de A di ko teg ci loxo roi des arènes mu Modou gis naa taxawaayam vraiment maay booy yow mention spéciale à Modou ak képp ko xam ne nitu Modou nga aussi tamit gis naa sa taxawaay quoi. xaaju dañu gis nga xaaju même bi nga gaañu avant ngay gaañ gis nañ la nga am benn yëngu-yëngu aal bay jooy papa keroog lan lañ la déey parce que papa soo mu def bay jooy te bëreegul waaw mais li naan mbër xam nga gaal yi ak mais mais Ile di Sam dafa yaatu Ile di Sam dafa yaatu Ile di dafa yaatu am na ay kóllëre. ñun am nañ ay di ñoo xam ne ni suñu ay wóor la lañ balaa di nekk mbër sekk ak ñoom ñu ñuy ñaanal diggante pël la ak séeréer. loolu amu solo Siteu waa Siteu day dem si ñu mu xam ak ñu ko miin ma dem si ñu ma xam ñu ma miin Siteu day dugg ci pël gi ñu koy jàppale dem saalum saalum comme sama mbokk yi mais loolu amul solo Sénégal lépp benn la dana am séeréer sëriñu séeréer sëriñu pël sëriñu saraxule sëriñu nangam sëriñu nangam olof ak lépp loolu amul solo ah mais loolu àll rek da nga am instant làmb deret bi day yëngatu rek quoi waaw ah. ni ngi jaajëfal ñëpp di ko teg ci loxo di ko teg ci loxo président bi euh, Mame Père Ba ak jàmbaaru suñu académie yëpp képp koo xam ne tamit yaa ngi taxaw sama ginnaaw dama jàppale maa ngi lay sant rawatina autorité parcelloise yëpp maa ngi sant ñëpp ku ci mel ne le maire Moussa Sy ah, ñoom Goo Faye ah ñoom ah, Moustapha ñoom Mamadou Wane ah, ah Mbathio ah, son excellence monsieur le ministre Amadou Ba maa ngi koy gërëm l'international PAN maa ngi lay gërëm bu baax baax gis naa taxawaay bi André King borom Dubaay noonu maam Biram Diouf boo limee da ngay jum Desagana Desagana maa ngi lay gërëm bu baax a baax a baax Youssou Ndoye maa ngi lay bigam lu bari gis naa lépp góor gis si jee ku lim di nga juum ku lim di nga juum képp koo xam ne daal jàppale nga rek maa ngi lay sant di la gërëm di jaajëfal ñëpp quoi. waaw waaw Souleymane Mbaye l'international triple champion du monde mention spéciale à toi <laughs> mais bi nga doon ñëpp